sant yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di am contentement lool di gërëm nag zone 1B bi nga xam ne dañ ma choisir tey def ma marraine ci am contentement bu am solo donc loolu dafay wane ne ñoom ils sont sensibles ci effort yi nga xam ne le mouvement am dem Grand Mbour ñu ngi koy def depuis six ans loolu dafay wane ne ñoom bëgg nañu leadership bu jigéen donc tey ñun dañ ci am benn contentement bu am solo voilà, à l'image de notre ville à l'image aussi de notre chère mère Voilà, donc je vais profiter di la sama famille donc je vais sama sama jëkkër je ko gërëm di ko parce qu'il fait un effort euh, soutenu di ma jàppale di gërëm sama famille di vais sama dom sama xarit la présidente des femmes du mouvement Amdem, dem Caroline Gassama ma koy gërëm di ko ñaanal bu ma ko gërëm dama koy ñaanal lu mu mënal yàlla mën lu ko raw déwén donc di Euh, Benno boko yaakar yëpp parce que ñëpp ñu ko si ñëpp ñëw fekk si final bi xam ne final bi feet la ñu liggéey ci final bi liggéey bu am solo donc kontaan nañ si lool. waaw di sant yàlla may wax rek di euh, kon am contentement ak fierté di liggéey ak monsieur le maire Cheikh Issa Sall parce que ku ne xam ne avec le mouvement am dem depuis 2016 dafa ne waa Mbour képp lu waay nekk si lu baax di ma si fekk.

Nous mu dafa fonds communal 20 millions de a fekk mu 240 millions pour dimbali jigéen ñi. ñu def ay une première. un partenariat avec FONGIP un partenariat avec Promise rien que pour promouvoir l'émancipation de la femme promouvoir leadership des jigéen ak promouvoir l'entrepreneuriat. mu def ne pour une première fois c'est la am la FIDAC, foire internationale de Dakar. nga xam ne ku ku ne xam na li stand di der mu jënd tout un tout un espace mu ne lii dama koy jagleel les femmes de la commune de Mbour mu nekk une première femmes yi les artisans ñëpp gis ci seen bopp macha allah kontaan si loolu ñuy ñaan yàlla mu mën ren yàlla mu na ko des ñu ñu defee ne foofu la yem mu ne ci budget 2023 bu ñu voté keroog le 27 mu ne la femme de Mbouroise dama koy defaral euh, kër jigéen ñi donc incha allah si budget 2023 bi dañ cee prévoir kër jigéen ñi avec des formation qu'il faut ba nga xam ne incha allah ñëpp dinañ ci gis seen bopp dinañ def le grand maillage de Mbour nga xam ne jigéen ñëpp dinañ am seen autonomie mën a liggéey parce que dañoo gëm seen bopp te liggéey lañu ko comme le maire.